jëf mbokku internet yu 5M TV Sénégal xibaar yi la ci gën a fës Dof ndey teg nañu ko loxo moom rappeur bile ginnaaw mandat d'arrêt bi nga xam ni tegoon nañu ko ci ndoddom gendarmerie kon teg na ko loxo ca booru 4 heures du matin foofee ca ngexoox bu ñu sukkandikoo ci suñu natango yi ji waa Seneweb kon jamono ji ma ca brigade territoriale bu Kaolack lu ñeel dossier bi moom mi nga xam ni dafa wax ni rek dafa am koo xam ni dafa ñëw yàqate otoom loolee metti ko ginnaaw concert ba ñu amaloon foofee ca Ndofane moom nag Dof ndey mu yore woon paaka rek doon ko nag doon ko bëgg jam doon defanteeg moom sax nag mu mel ni ki nga xam ni moom la doon jam nag dafa mujjee tuur nag deret bu bare mujj bi sax mu wuti certificat médical buy wane ni kon moom am na ay gaañu gaañu ci yaramam ci diiru fanweeri fan kon da daal di tëdd du liggéey ginnaaw rek ki nga xam ni moom la doon jamate moo def nag lu nu mel yóbbu ko ca ca table bu commandant brigade territoriale bu kaw Kaolack gendarmerie yi nag ci dañuy woy di ko seet moom Dof Ndey mile rappeur boobee sax nag kon jamono ji ñu ni mujj nañ koo jàpp ca ngexoox fala demoon làqatu ji daal di fay téléphone am enquêteurs yi nag laata loolu sax kon ñu ni localisé nañu ko ngir rekk daal di koy jëli ji jamono ji kon ñu ngi wéyal enquête bi ñoom gendarmerie yi ànd ak rek waa Mbour ginaaw unité d'élite ak liggéey bu am solo bi nga xam ne rek def nañ ko foofee ca Ngexoox ca booru ca booru 4 heures 30 matin ñoom nag fexe nañu rekk ba daal di seet rappeur bi ba dal di koy jàpp.